nee na ñeenti rek la ñu am yàlla ne yonent bi Cheikh Tidiane Cheikh Oumar ne sama sëriñ Thierno Hamdoul Bachir nee na nee foofu loolu nag mu ngi koy sante yàlla Thierno nee na alhamdulilahi rabbil alamin nit du ñëw ci moom ah, ba mu nekk borom alal mu màggal ko mu daal di tuuf xeeb xam ne amul alal ku am ak ku amul moo yem ci moom ku ko may ak ku ko mayul moo yem ci moom nee na ñoom jamono bi ñuy ñëw ci moom buñ ko mayee ñaar ñetti rek ceer day ñaan yàlla bu ñu ñëwaat ci moom ne amoon nañ benn mbokk bu tudd Samba Dia kooku moo ko wax bul def noonu ceerno yow yaa ngi dem ci say sëriñ nga leen di may hadiya ñun buñ ñëwee tout astut tuut gi ñu yore yow tamit nangul ñu ko nga ñaanal ñu yàlla na yàlla wuutal te it yàlla yombalal ñu nga ñaanal ñu loolu ceerno nee na bu dee du leen lor bëgg naa bu fekkee doo leen ci fàtte it seeni way jur mbé bëgg naa Ah, ah, ah, am naa benn mbokk benn xarit boo xam ne yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko mu ngi tudd Sidi Fall mu ne day jëndal ceerno oto ceerno ne ko jëndal nga ko sa sa pap mu ne déedéet de mu ne ko aywa demal jëndal ko sa pap boo ko jëndalee sa way jur ba not boo ma jëndalee jamono jooju nag ma daal di koy nangu waaye boo ko jëndal sa way jur bëggaguma ko de yàlla dogal mu dellu Belgique mu andi ñetti oto ñaari mu may ko papam ñetteel bi mu mu mu daal di ànd papa ji jiital papa ji ba kër gi mu def caabi bi ci loxo loxoy waajuram ba góor gi daal di dox ceeru oto wi nee na mooy Mercedes bi mu yoroon moo tax Mercedes boobu mu yàgg ak moom lool ndax kóllëre moo ko waral moo tax. mboolem li nit di def ceerno nee na na jiital say wayjur eh, sëriñ lum la mun a defal nee na il nga am say barke wayjur de ku amul barke wayjur nee na doo am barke sëriñ kon nag kenn ku ne ci ñun say wayjur bu ñuy dund njëriñ leen bu dund bu ñu dundul ñaanal leen bu loolu wéyee balaa nga yóbbul sëriñ nee na nga jox sa waa kër ñu lekk ba ñu suur bu desee nga daal di ciy jox ceerno nga daal di ciy may keneen ak keneen ceerno nee na moom de lii la ñuy digal te it loolu la bëgg yal nañu yàlla yal na ko yàlla dimbali te dimbali ñu yal na yàlla dimbali jullit yëpp bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa